Amni, na vamos. Aonde? No bar. Santo. Sawabia. Alhamdulillah. Alaikum salam. Legal, olha.

kii lu mu sax jërëjëf Mbaye borom gi jërëjëf ku baaxan yi ku la taxawoo bi macha ah, moom sama lépp la waaw yàgg nga nu ko wax nag waaye lii moo gën a moo gën a fay parce que instant bii hmm. instant bii ragal du ànd ak yow fii koo fi gis rek xamal ni hmm. am na lu ko ñor macha allah jërëjëf man nag man umu lu may nëbb kenn képp laa yaakaar muy sëñ Tuubaa moo tax yàlla na fi yàgg yàlla na wér yàlla la yàlla dimbali ba lepp lo xamantene ni nii la jëm ci yow suñu borom tek am na droit ñaanal la ko ndax suñu mbokkum taalibe bi ñu sëñ Tuubaa bi dafa tax a jóg yàlla defal ko mom moom da ngeen am mbokk ah waaw waaw moom sëñ wax moom laa ko ñoo bokk nek moo ko gaay bokk ñoo bokk gaay waaw ñoo bokk gaay baay waaw kon boo gisee ma ñëw mom suba la ko woo muy dañu ci yow man ko fu ko nga toll mu wax ko bu ñu woon yow it te ñëw dinaa ñëw waaye bu ñëw woon te mu yow dinaa ñëw eh, wax naa gaa ñi léegi leen li atu bi gën a rëy ci adduna nit war koo am jàll ak moom ko am moom yar ak teg ak lislaam sëñ Tuubaa dañu wax nan jàng nan liggéey nan bu ca dara dee manqué nan bàyyi liggéey bi te jàng bu ca dara dee manqué nan bàyyi jàng bi te yaru li gën ci ak teg yi bëgg Rasulullaah bëgg sëñ Tuubaa ànd bi nga ànd ak nag mooy ànd di woo bi mu wax biig laa ko déglu damaa jooy bi ma ko wax téléphone ci suba damaa ko woon na la deux heures sax wuyu damaa fàtte ma xëy woo la ne sa wax ji si sëñ Abdou Lahad laa ko gën a dégg gis nga xëy fii ne ci réew du ñu yóbbu àjjana sëñ Tuubaa ñu yóbbu àjjana ay sàmm lan ci noonu dama war a xaaj ji tey wàññi fii laa ko waxee mbooloo buñ bàyyi seen day bàyyi seen bàyyi def la jidd ci seen diggante ak sëñ Tuubaa bu Rasulullah yi ak tarixa bu man di doon dangaa war naa aceet naa jéeg sàmm boo gis yàlla da koo jox yet ni ko wàññi jug yi teg leen ci aw yoon nan ma wut si bu ñëwee lekk naa ànd gi nga ànd ak ñu baax ñépp nag yemale islam yépp dox ci yar ak teggin baax ngi bokk ñuru leen loolu ku yàlla tax a jóg xam na ko réew mi yàllaa ko moom moo ko jox ma ki sàmm bu cawal nekkee dala koy jox kenn du ko saafara tooñ nag moom defoo ko yàlla nag du jox nit lu lay lu ñëpp laa ma nga nee te amul fu ko jaarale coow lii mënta yàq hmm. maanaam yàlla na bu la ci dara laal a yi nii murit yi ku bëgg yàlla nii dina jëf moom téemaan la waaw waaw xaw eh, ah, ah, nga def maa ngi si jàmm masque yi moo tax doo xam ne kenn waaye moom sëriñ si moom duñu takk masque ñoom ñoom ñu am damay dajale nañ ñoo taxaw yëpp